salaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu ak di ñu topp di topp rawatina émission bi di sunu yaakaar te ay ay bés ni ñu ab jukki ci injilu màcc ñu ngi toll ci ya, saar fukk ak ñaar bi donc gis nañu lu bëre loo xamante ni euh, xëy na bu ngeen seetaanee wala déglu jukki ñu njëkk def di ngeen xam tënk tënk yi buñ ko bëggee defaat fi xëy na mën nañ jëlal waxtu boo xamante ni euh, duñ ko mën a def fi waaye ci li ñu jàpp rek gis nañu ni ni yeesu mi ngi wéy ak ay taalibeem di leen am lu mu leen sant moom mi ngi am lu muy lu muy def donc ñu ngi leen di fàttaliwaat rek ni mën ngeen jokkoo ak ñin ci numéro yi nga xam te ni moom la ñu bind noonu mën ngeen jokkoo ak ñin tamit ci whatsapp bi mën ngeen tamit ñu bind ci suufu jàng yi nga xam ni moom la ñuy def bu ko defee dinañ mën a waxtaan ak yéen tontu ci seen i laaj wala ñu xóotal ak yéen jàng yi nga wala jukki yi nga ñu koy def ci injil bi di ñaanal yàlla rek ñi nga xamante ni dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp yëkk ci leen ñu jóg ba mën a delluwaat ci seen i yëngu-yëngu ñu nekk ci ay jafe-jafe it yàlla génn leen ci jafe-jafe yooyu waaw ndaxte yàlla dafay dégg te ku ko woo mu wuy la ku ko sa ku sàkk wolloom it mu jox la ko kon ñu ngi leen di gërëmaat di leen sant rek ci seen teewlu ak ci ni ngeen ni toppee ci jukki yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu wéy ci njàng mi tey ci Matthieu saar fukk ak ñaar aaya benn yeesu nee moom mooy boroom bésu noflaay bi amoon na benn bés noflaay yéesu jaar ci ay tool yu ñor fekk ay taalibe xiif ñu daldi fàq ay gub nag di lekk pharisien ya gis ko ne yéesu gisal say taalibe ñu ngi def lu jaaduwul ci bésu noflaay bi noonu yéesu ne leen ndax jàngu leen la daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ñamu àndaloon xanaa yëguleen ni mu duggee woon ca kër yàlla ga gis fa mburu ya teewal ca kanam yàlla mu daldi ko lekk fekk jaaduwul mu lekk mu lekk ca moom wala ñamu mu àndaloon saraxlakat rek ako sañoon lekk te it ndax jàngu leen ci yoonu Muusa ne saraxalakat ya ca kër yàlla ga teeraluñu bésub noflaay bi te tooñuñu waaye maa ngi leen koy wax am na ci seen biir ku sut kër yàlla ga mbind mi nee na yërmande laa bëgg waaye du rendi saraxi mala su ngeen xamoon lu wax jooju tekki kon du ngeen teg tooñ ñi tooñul ndaxte doomu nit ki mooy borom bésu noflaay bi yeesu faj na nit ku loxoom làggi bi loolu amee yéesu jóge fa dugg ci seen jàngu te amoon na fa nit ku loxoom làggi noonu farisen laaj ko faj ci bésu noflaay bi ndax loolu jaadu na fekk ñuy wut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 waaye bu fekkee ne ci xelum yàlla lay dàqe rab kon nguuru yàlla agsi na ci yéen su fi amee nit ku bari doole te nit bëgg dugg ca këram nangu alalam naka lay defee xanaa dafay jëkk a yeew ku bare doole ka ba noppi doore toj këram noonu ku farul ak man yaa ngi may xeex te ku daajalewul ak man yaa ngi tasaare ku sosal xelu yàlla mi Yeesu teg ca loolu moo tax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 juñu mësa wax ndaxte dees na le àtte ni ku jub ci say wax wala ñu daan la ci say wax yeesu nangu wala def kéemaan ci kaw loolu ak ay xutbakat ak ay pharisien wax ak yeesu ne ko kilifa gi dañoo bëggoon nga wone nu nga won nu kéemaan guy firndeel sak yonent yeesu ne leen yéenay laaj firnde yéen niti jamono ju bon ji yéen ñiy fecc seen ak yàlla waaye du ngeen jot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 ba dëkkoon ca sud dina jogondoo ak niti jamono ji yey leen ndaxte dafa jóge ca catul àdduna ngir déglu xam-xamu suleymaan te ku sut suleymaan a ngi fii boo xamee ne rab wa jàppoon nit ka génn na ci moom day wër ay bereb yu wow di wut fu mu noppaloo waaye du ko gis noonu danaan naa dellu ca sama kër gama génne woon bu ñëwee nag mu fekk kërug neen ñu bale ko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 ne ko sa yaay ak say rakk ñu ngi nii taxaw ci biti bëgg wax ak yow waaye yéesu ne ko kan mooy sama ndey ak ñen ñooy samay rakk noonu mu joxoñ ay taalibeem ñii ñooy samay ndey ak samay rakk ndaxte ku def sama coobare baay bi nekk ci kaw yaa di sama rakk sama jigéen ak sama ndey donc lu ñu mën a tënk rek ci saar bi mooy na yéesu nee na def lu baax ci bésu noflaay def lu baax ci bés bu nga xam te nit ñi ni nga noppalu dara nekku ci boo amee sa sa jur mu daanu ci kàmb wala mu daanu ci teen ndax da nga naan tey bisu noflaay bi damay bàyyi ba ëllëg ma ñëw génn ko déedéet da nga koy ràmm kon def lu baax ci bisu noflaay bi amul benn amul benn jafe-jafe lu baax la ba tax ne yeesu faj na ci ay nit ci bisu noflaay bi faj na si ñu ay rab jàpp ci noflaay bi waaye yées tamit nee na bépp bàkkaar mënees na ko baale bépp tooñ mënees na ko baale waaye sosal xelum yàlla bi sosal yàlla deesu ko baale du ci àddina du ci àllaaxira am na it ñoo xam te ni dañu doon laaj yeesu mu def kéemaan ngir firneel ak yonentam waaye yéesu mu ne du leen def du def kéemaan ñoo ngi dañu doon wuti dingat xam nga booy laaj dara ngir wut firnde te mu doon dëgg ci yow yàlla mën na la ci wuyu waaye booy laaj dara ngir dingat yàlla ngir xool noo ko kokkalee du la ci wuyu loolu la Yeesu def fii nii ak ñoom hmm. Yeesu tamit nee na ndey ndeyam ak baayam mooy ñuy dégg kàddu yàlla te di ko jëfe mu ñu góor mu ñu jigéen ñi ñooñu ñooy ndey ak baayam tekkiwul nag ni amul ndey tekkiwul ni amul ay doomu baay amul ay rakk amul ay mag donc waaye waxin la woon rek ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy topp kàddu yàlla gi di ko jëfe ay mbokk lañu ay doomi ndey ak ay doomi baay lañu kon loolu mooy li nga xam mën nañ ko tënk ci saar fukk ak ñaar bu màcce bi nga xam ni moom lañ doon jàng tey di ñaan yàlla mu barkeel leen barkeel li nga xamante ni dégg ngeen ko ci kàddoom tey li nga xam te ni moom leen bëgg xamal mu leeral leen ko kon ñu ngi leen kay waxaat comme ñu ko waxee rek mën ngeen jokko ak ñun ci numéro yooyu ngeen gis mën ngeen ñu bind ci whatsapp mën ngeen ñu bind ci suufu jàngale yi ngeen ñu mën a wecce ak yeen xaar wala ñu mën a xóotal li nga xam te ni moom la ñuy def comme ay gëstu ngir indi ay leeral ci seeni laaj ñu ngi ñaanal ku nekk yàlla mi borom jàmm mu jàmmal leen yàlla mi nga xam te ni moom moo mën lépp moom moo nekk fu ne xam lu ne kan ku nekk la nga xam te ni mooy sa jafe-jafe mooy sa soxla ñu ñaan yàlla mu defal la ko ci kaw mu gën ci yow kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen dox jox dox daje ay bés yi di ñëw ci yeneen i jukki ba léegi ci téereb Macë jërë ngeen jëf ne leen yàlla barkeel